daam ñu ngi sant bu baax a baax. maa ngi sant bu baax. diggante Papa ak Thiès kan nga jàpp ne mooy daan. Siteu. combat Papa Sow ak la bu boo xamante ni moom combat bu garaaw la. waaw ah, ndax boo dee xool combat xale la ak mag ci niñ koy jàppee. waaye Siteu bu respecté wul Papa mën na cee jël lu ko bett. waaw ndax Papa boo dee xool ma la loo xamante ni neexut a jëli soo koy jëli foo nga foo nga yóotu. foog nga yóotu Siteu nag man bu doon bu doon bu doon maa koy yàpp bu ñëw bu mu ñëwee bu mu ñëw ci combat bi bëgg a bëgg bëgg indi fukk xale ñëw rek dama koy jeexal su ko defee mën na cee jël jël bu ko xamante ni da koy bett torop torop torop. xeex bi wala bëre bi suñu ñaar la gën a côté xeex bi Siteu lay gën a arrangé ndax sita moo moo moo sut rallonge su ràccee rek déclenché xeex mën nay touché Papa te Papa du ko touché waaye heure bu Papa daggee garde bi daw dugg si gardam moom mën na ko touché. ndax combat la boo xamante ni combat njool la ak ndaama kon ndaama su fekkee dafa dagg garde bi ñëw dugg def combat rapproché mën na toucher adversaire bële waaye adversaire bële bu fekkee moom dafa dafa dafa da koo sori pour jël ko distance mën na koy duma te du te du te te te sawaay heure bu mébee ñëw da koy dugal ku da koy dóor ku te du si. combat dafa nar a gaaw wala nar a yéex. non du combat boo xamante ni day ñëw rek jeex loolu moom moom amateur yi bee boo xam ne du combat buy ñëw di jeex dinañ bëre ndax ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ. Siteu day bëre wet Papa day bëre wet Siteu day caxabal Papa day ca caxabal sita day mboot Papa day mboot kon combat boo xamante ni ku ci nekk ci ñoom rek ku ci njëkk sa sa sa morom ci mani ca ca ca ca jàpp bu baax bi rek mën nga ko daan. kan nga jàpp ni yow tey jii ba doon teg si moom ngay teg xam ne kii at ba motu mooy daan. non ñun ñun ay amateur lamb man mii dama koy tëgg fii laa nekk Thiès caatu promoteur yooyu ngay dégg cees man la moom nga moom ngay toogal nii di waxal dama dañuy dund làmb dañ koy xam bu baax duñ ne kii mooy daan waaye bu ñëwee ci làmb ji boo bu bu bu ñu simmeekoo ñoom ñaar bu kii dongalee kii dongalee dañu xam kan moo ci gën a nekk état waaye duñu wax ni kii mooy daan ndax chaque jour dañuy bañ a juum ci côté production moo tax chaque jour ñu wax ni kii mooy daan waaye ci côté état bi dinañ xam ni kii moo ëpp kii état. yow en tant que promoteur temps yi noo gisee maanaam CNG ni mu ñu bëri lañ koy ŋàññi parce que dañ jàpp ne euh, fu mu toll nii cinq minutes combat dafa tuuti wala grand combat yi ñu def ko dix minutes noo gisee loolu. déedéet li ñu li ñu li ñu teg nii ci comme règlement man am naa fichier bi am naa fichier bi lii naa lépp li ñu teg comme règlement lu baax la lamb dafa war di jeex lamb daa war di gaaw ay ay ay dañuy jël ay millions jox ko ci jox ko ñaari mbër yëpp. ñu war a sumeeku bëre kon bu ñëwee ba ci làmb ji amateur bi génne amateur bi ñëw setaan si promoteur bi génne xaalis bu bari def ko ci combat bi kon ñoom bu ñu ñëwee war nañoo bégal amateur yi waaye tamit war nañoo jox delloo njukkal ki nga xam ne moo leen tëgg làmb ji mooy ñuy bañ di niil ci combat yi ñuy ñuy nangoo bëre tey bàyyi téye seen bopp bi ñuy téye seen bopp téye seen bopp boobu ñuy téye seen bopp moom war a làmb yi di niil làmb yi di niil wala yooyu mais bu ñu ñëwee téewuñu seen bopp ñu joxe day am jël far force jërëjëf promoteur jaajëf ñoom des na doon yóbbante ma si yow nee nga tëgg combat yi. ankay ñu ngi waajal décembre bu neexee suñu borom tëggoon nañ amoon nañ journée journée boobu la ñuy indiwaat décembre bu neexee suñu borom décembre bii di ñëw bu neexee sunu borom dinañ ci tëgg te di ngeen ko yëg média yëpp dinañ ko yëg Thiès ñun moom xam nañ ñu. woo ñu ñëw jóge Dakar ba Thiès ñëw. incha allah incha